ñu dem ci ay Tall Sall dem bi muy jàkkaarloo ak wala gouvernement bi muy jàkkaarloo ak presse bi dañoo wax wax nañ ci yu bari mbirum xuwaan ak yu baree bari Ousmane Sonko waaye dañoo wax ci mbirum Niger mi nga xam ne fa la coup d'état mujjee am ginnaaw ba coup d'état ba amee nag CEDEAO dafa pare pour dal seen kaw ci yu baree bari yi ñuy def léegi nag am na ay réew yu pare pour ànd ak Niger pour dimbali leen waaye dafa mel ni Sénégal Aïssata buñu Sall daal ci kàddoom nee na dina yabal ay soldats foofu la ca Niger élément ñu dellu siwaat ci soldaar yi war a dem Niger di laaj ndax soldaar yi dañuy dem ah mais balaa tontu laaj boobu di mën a wax nii lu tax ñu war fa dem tax ñu war fa dem muy coup d'état yi ñu ngi commencé nag di bëri te lu bëri di bëgg a soof te lu soof nag ñëpp dañuy dem ba yaakaar ne mooy yoon gis ngeen li am Mali gis ngeen li am Burkina gis ngeen li am euh, Guinée ñu ne bii nag dafa doy te du ëpp tuur président Afrique yépp toog ñuy bokk CEDEAO en tout cas ne lii nañ leen def ay daan te suñu soldats yi nañ dem yéen a ngi fàttaliku boobu buñ defee fii ak waa Mali di waxtaan ak ñoom ñëpp ne CEDEAO amatul kuréel gu dee la tekkiwuñu dara ñamewuñu sax def di ko coow fii léegi nag CEDEAO tam bëgg a won ni lii mbir mi mun na ko taxawal Sénégal nag yore signature am nga xam ni moom bu xas yéene ba wax dara waxuma sax di ko xaatim bu ko waxee rek moom dugal na boppam dootu ci génnaat astamaak bi mu ko xaatimee moo tax président Macky Sall nga xam ne mooy chef suprême des armées armée moo jiitee armée yëpp ne suñu soldats yi dañuy dem naka la ñuy demee ak kan la ñuy dem ñoo ngi waxtaan seen waxtaanu soldat euh, démb tey xëy na ëllëg ñoo ngi daje ñoom ñëpp chef d'état-major yi di seet mbir moomu naka lañ koy doxalee ba li président yi wax ñoom ñu mun ko wéyal ndaxte Niger dañ ko may benn benn semaine diir pour euh, ñu mën a bàyyi ñoom soldats yi nekk Niger wala alors suñu soldats yi dem foofu ah di ko jeexale nag ci Eliman li mu laajte maanaam Pape Ale moom lu tax ñu yóbbuwaat wala mi ngi noonu Assane muy kàddu ay Aïssata Tall Sall ginnaaw bi nga xam ne gouvernement bi mi ngi doon def face à la presse. waa am na solo xam nga ñoom moom ay borom xam-xam lañ euh, jàng seenum njàng xam ne réew di doxe maîtriser am réew xam bu xeex amee nan la ñuy def ba dem ak ña ñuy jàppale loolu ñoo ñoom ko jàngee woon waaye ñu ngi koy ñaan rek xamuñu soldaar yi fu ñu nekk mais bu ñu waajee pour dem nañ jaar Casamance régler la fa am ba circulation ba normal ñu jaar kees am na ay wëyu yoo xamante ni ñi ngi foofu rëcc dugg fa di taal ay oto ñu fexe ba jàpp leen waaye bu ñu noppee ñu dugg Dakar gii xam nga dakaar ak ñu defoon jëye ji yaraax bu ñu ko fàtte waaw xam nga Dakar am na ay terroristes yu njëkk rëcc ah. mooy ba jóge woon ba jóge woon kay di ñolax ne ko ba ñëw Grand Yoff di ñu jàpp leen ah. am na yu rëccoon ah. yaakaar naa euh, dix onze lañu woon yaakaar naa dix yi rëcc hmm. ñu ngi si dëkk bi ba léegi barki démb sept personnes ñoo taal bis bi. waaw sept personnes yaa ngi si dëkk bi. mais ñooñu est-ce que amul ñu ñu ko délégué pour ñu topp leen. non ñii ñoo leen war a ñëw lijjanti dëkk bi dafa dafa fi ne dafa nekk si problème yoo xamante nii indi fii ñu réglé Sénégal ba mu ren ne cocc ba jàppaale ñu 4-4 bi doog leen a yóbbu foofa ñu réglé ji problème ñeneen. dañ sóoraale ni ñañu faral am na ñeneen ñu dëkk fa nga xamante ni ñoom la ñu war a faral. d'accord ci ay xabaar it lu ñu wax mooy gannaaw déclaration ministre bi daal am na ay sénégal yu nekk Niger yu commencé am problème foofu. am nañ problème fi mu toll nii ndax bis bu ñii ñii rek la xaar ba xam dëgg la wala dëgg ndax lii lépp ay rumeur lañ ko teg. Hmm. waaw ndax tey jii yow bu fekkee ne am nañ sama njaboot mi ngi sa kër yaa hélas ñu am problème nga daal dem. Euh, ànd ak am ñeneen ñu ñëw euh, hélas ñëw di la kii. waxuma nu ma ko mën a expliquer xam naa hélas dina gën a mën a leeral <laughs> Euh, su boobaa ñi ñi nekk ak man dama leen di not dama naan leen. réer nga ci njaboot abal leen ma. d'accord ah, kon daal nañu nañu war a terroriste yi. terroriste yi kay mënuñu leen ñàkk génn ndax ñoo ñu ko wax. te ay kilifa lañ duñ waxantu. ñoom ñoo ñu terroriste yaa ngi Sénégal gii bari fi bay bëgg dee rawatina Dakar gii. terroriste yi waaw nañ leen génne. d'accord alaaji noo gisee déclaration wala boog sax euh, li ministre Aïssata Tall Sall wax. waaw façon bi mu ko waxee de rafetluwuma ko parce que ñun dañoo am ak ñaari dëkk frontière mhm. Mali waaw am ak frontière Guinée yooyu yëpp ay su ñoo ko yor maanaam ñoo xam ni tey coup moo leen fa teg mhm. ni mu waxee ci coup d'état ne dafa commencé soof gis naa sax am na ay rajo yoo xam ne moom dañ ko ko daggal dañoo dindi loolu xam ni loolu wax la joo xamante ni bi euh, wax ju ëpp la wax la joo xamante ni bi warta waxee warta waxee noonu parce que loolu rek moom kàddoom euh, day bëtt frontière yi parce que mooy ministre des affaires bu sa kàddu di bëtt frontière yi nga xamante bokkut ak kàddu saa njoogu muy wax wala sony bu muy wax hmm. sa kàddu dafay engagé réew bi yëpp nga taxaw waxee noonu ci wàllu diplomatie loolu waxin la woo xamante ni bii baaxut coup nag lim ko waxee ne dafa commencé bari bëgg a soof mm-hmm. donc daf ñoo waroon tamit parce que coup nit ñi tëbuñu rek coup mm-hmm. lan moo ko indi mm-hmm. loolu waroon na ko xool lan moo tax dëkk yooyu nga xamante ni bii amal nañ ay coup lan la njiit ya daan def ba tax armée ba mujj jóg jël nguur ga parce que li gën mooy dëkk bu arme ba jël nguur ga ci dëkk yooyu muy lim ci nga xam ni coup d'état yi soof saa yu armée ba jëlee nguur ya da ngay gis ni askan wa mhm. dañuy jóg ànd ak ñi nga xamante ne bi ñooy arme ba mhm. kon askan woowu dafa mel ni askan wu ñuy tënkoon la ñu daal di firi yëg bànneex ba tax ñu mën a Euh, ànd ak armée euh, bu Mali ba gis nga ba mu amee askan wépp dañoo jóg mhm. dalal militaire yi bu Burkina bi bi mu amee askan wa dañoo jóg mhm. sargal militaire yi mhm. nga xamante ni bii moo am Guinée ba mu amee askan wa dañoo jóg tàllal loxo tàccu ka ña nga xam ne ñooy militaires yi bu Niger bii ñu jëm askan wa dañoo jóg dalde tàllal loxo militaire yi mhm. loolu nag am njàngat la ci war a def balaa muy yëkkati ay kàddu di wax mhm. te dem di xeex yi nise yow léegi lan moo la fa yóbbu bu fekkee ne da dem intervention ne da ngay libérer askan wa askan wa moom libéré wu nañ ci jamono ji ñu toll nii parce que askan waaye tàcc est-ce dafa am ay soldats ñu fa jàpp la ñu wax non as dañoo téye euh, waaw déggoo mu ne nañ leen benn semaine dañoo te dañoo président ba lañ téye mhm. moo Mohamed Bassoum. Mm-hmm. moom la ñu. ak ay quelques soldats. moom la ñu téye waaw xam naa ak ay. waaw parce na may nañ leen benn semaine bu dee libéré wuñ soldats yi mais c'est que toll nii tey. Mm. liñ nar a indi ci Afrique musiba nar a am. fi mu toll ñun ñu ngi toog nii di wax mais xooluñu xanaa lii ñëw. waaw man dama gëm ne sax est-ce que du téye président bi. loolu sécurité am la bu njëkk ba. waaw CEDEAO ba muy dugg Gambie. Mm. Gambien dañ doon tàccu CEDEAO waaw di tàcc sénégalais yi di tàcc suñuy soldaar bi ñuy dem. Mm-hmm. parce que boobu Yaya Jammeh dafa nootoon Gambien yi. Mm-hmm. loolu ndam la. Mm-hmm. waaye tey CEDEAO fii mu jëm askan woowu bu dee ñoom lay sauver askan bu defu ndànk askan woowu ñooy xeex ak moom. parce que askan wi ànduñu ci dogal yi nga xam ni moom la CEDEAO di jël. parce que mënuñu am uranium. nga xamante France ca lay defee énergie. lampi français da électricité France ba te ñoom amuñu ko ñoom amuñu énergie ñoom amuñu courant buy tàkk. Mhm. Nigéria di leen chantage fi mu toll Nigéria da leen a coupé. Ah courant te ñoom lii produire courant ñoo ko ñoo moom. France boo demee ba nga xamante yow sa courant mi ngi aju ñu ngi lay wax ne soixante quinze pour cent ci mhm. courant France la koy alimenté ma ngay jógee Niger. Mhm. France loolu bu ko xamee di muucu ab dëkk. doo ko defaral loo xamante ni bi mën na am autonomie ci wàllu courant bu boobaa kon defe nga ni euh, euh, seen bañ faa jóge di néegi France ngi nii bañ benn dëkk Afrique dugg seen dëkk balaa fii ngay dem ambassade France ngi nii saa ñu demee mayuñ la dara ba noppi lekk sab xaalis mayuñu gars yi benn visa di lekk seen xaalis léegi tey bañ a gi ñoom ñu bañ a génn Afrique te bëgguñu africains yi ñëw seen dëkk doomu Afrique yi. mais loolu mooy lan. ñëw moo ci te nangoo ko ñëw. waaw boo ñëwee mun a ñu leen doo fi dugg. waaw vraiment te ñoom seen doom a ngi fii ci biir dëkk bi di muucu euh, alalu réew mi. vraiment ah. dafa dafa. mais mais kon ñu fàttaliwaat alaaji ni li ñu doon wax démb di ko gis muy circuler ci réseaux sociaux yi nee nañu rumeur la muy Poutine mi ñu ñëwoon mi ngi jël défense jël na position ci ñooy partagé ñooy partagé mais kaay loolu bi moom wax ni da nga déglu c'est que mi ngi placé ay pion ci Afrique mais comme li li ñu waxoon ne euh, Poutine nee na képp ku dal ci kaw Niger déclaré na la guerre loolu kii la loolu loolu nekkul lu officiel voilà loolu ay rumeur loolu nekkul lu officiel mais nag hmm. Poutine bul fàtte ni euh, Ibrahima kii président Burkina bi bi mu taxawee Poutine bi mu toogee Poutine wax na ko pour mu jàppale leen yaa ngi dégg am na loo xamante ne bi wax na kook ñoom. d'accord Mali gii dañoo armé ba ca yax ba li ñu yor ci ay arme sama dëkk Mali li ñu dafa ëpp. yaa donc lii nga xamante ni bii mooy mbir mii nañ ci jéem a waxtaan. jéem fexe na ko gis nga bu ñu taal du àddina bu bu ñu kii loola. Mali <laughs> Mali dañoo yori arme yu garaaw lañ yore. billaahi Mali gii. non lu leer laa. sama dëkk <laughs> maam maa ngi leen Mali wuy ma nag. Mali <laughs> Mali gis nga Mali. déglu ma rek Mali nañ ci génn nag. non Mali ci la. waaw dina ma <laughs> Mali ak Mali Burkina. ak Guinée. nee nañ ku laal Niger laal laal nga leen. dañuy jàppale Niger te Algérie mi ngi jiix jaar. waaw léegi loolu laa bay alaaji ñun xam nga ñun ak Mali ay dëkkandoo waaw ñu ay dëkkandoo lañ. waaw léegi bu ñu leen di te li mu yor ci arme dafa bari baax na jërëjëf. ah il faut ñu il de. bàyyil noonu Mali gii de. waaw bàyyil noonu bàyyil noonu. ah maa nuyu maa ngi nuyu sama mbokk yi nekk ah. foofu.